seetaan. non nice dina baax dina ko organisé. ayca Malaysia. yaa gën a ma sant yàlla. sa kanam bi Mariam bu seel di sant samay ñaari waajur. yaa di bëgg sama père. waaw ñaari père ak pomme de terre yi di bëgg suñu papa sama mag bi ma àndal. boy yi ma àndal yëpp. comprendre. yaa di bëgg tamit boy yi ma àndal. pour lim yow di wa wa waa waa Touba bu ba a baax yow di bëggee ñëpp wa di bëggee tamit waa waaw Casamance di bëggee Matar Matar maa ngi lay ya, bëggee ne la waaw dasel gi ah yëg nga beneen niveau yow Matar borom Casamance borom Kayoor maa ngi lay bu ba di bëggee Serif Aydara Serif maa ngi lay bu ba a wa nañ dem ba ci biir waaw. ayca ñu déggee maam Cheikh Mbacke. maam Cheikh Mbacke borom waroon la. maam Cheikh Anta. maam Cheikh. waaw waaw maam Cheikh bëgg bu baax a baax. waaw di bëgg Baye Sidi Mbacke. waaw di bëgg ñëpp. Hmm. ku leen da ngeen jum di bëgg Cheikh bi. jërëjëf waaw mi ngi ba Dalifort. kontaan ci yow. di bëgg bu baax di bëgg Gora Saliou may ma loolu rek. Kalau di Kembang apa dulu nih? Hakimu. Tapi dikepikir saya bisa tuh masih wah. Dulu aja tani. kan? Ya di wow, guru salim. Di bagian guru salim bah apa? Di bagian wah kayo. Nang di apa? Ya di bagian wah wow. Wah. Di bagian nyep wah pun bar bar. Nang di bagian bar kalau di luar. Wah, amna dia tu. Ada yang desa teras. waaw loolu ziar Babacar Dieng maa ngi koy bëggee bu baax a baax. waaw sant yàlla di leen sant suñu yàlla waay di wax jërëjëf Serigne Sall jërëjëf Serigne Sall di wax Serigne Sall xam nga di nuyu ñu nekk si plateau bi yëpp di nuyu suñu frère pour xam nga ndax dafa bàyyi te ñu bàyyi xalam bu ko kon yow moom tamit policier yi ñu ngi suñu frère ñu ngi leen di bu baax a baax di nuyu mbir mi nekk yëpp xam nga di nuyu promoteur bi aussi di nuyu waa Yoff nga xam ne waa jugee bu ma amee ñoo am bu ma ñàkkee ñoo ñàkk di bëgg waa waa Touba bu baax a baax a baax xam nga di bëgg sama gars yi ma àndal na suuf xam nga su ma ngi sekk ndaanaan moo ma solal li ma solal moom Cheikh Ndamo xam nga di bëgg tamit Baye Sarr suñu Sarr moo jël indi moo si oto xam nga te jox ma ko daaw ak di bëgg waat ñi nga xam ne ñooy waa Yoff vraiment ñun am tey ba Ndiaye am nga di leen bëgg bu baax di bëgg aussi weesu quoi ñi am plage bi kenn baaboy maa ngi koy bëgg bu baax moom tamit baaboy di nuyu tamit aussi Pape Diouf woykat di ko woo si combat bu baax pour géwél tamit maa ngi koy bëgg bu baax a baax di bëgg waat waat bu mu rànd vraiment mu ñëw rek mu ñëw waaw non yéen da ngeen war a wax ci combat bi mais mënoo fi nekk. waaw yëgale leen lépp de mooy. waaw yëgale leen lépp de mooy. waaw yëgale leen lépp de mooy. waaw kon mën nga. di santaat ñëpp xam nga waa waa waa waa Mauritanie maa ngi leen bu baax a baax sëriñ bi fa nekk yëpp maa leen sant bu baax a baax aussi di nuyu sëriñ Bulu na ko maa koy woo si combat bi sëriñ bi nga xam ne moom lañ tamit jóg yow dem waa waa waaju xam nga maa leen koy bu baax a baax ñu ñam kër maa la tey ba ñaar ñuy confiance sama doom day. ay jël kaale kaale ci combat bi lan moo leen ko téema ni lan moo leen boole yéen ñaar. waaw di nuyu Thierno Ndama Dame. di nuyu Thierno Ndama Dame Thierno. lan moo leen boole yéen ñaar la ci ban ci maanaam ci ban fànn quoi war a la wala du promoteur bëgg la wala daa am ku soxla morom ci yéen ñaar parce que waru ñàkk bi tamit taxaw bi ba allah nga xam lu mu war ok waaw waaw li bu dee moom li di ñaan yàlla may lan moo leen boole yéen ñaar sànq nee nga kii Bamba Bilal mu ne dafa voyagé dem ne toolu tool nii. waaw waaw ah, <laughs> ah, am na màgg am na loo xam ne la si entraînement. génn sas la sas sa bopp. boo ñëwee boo ñëwee boo nee résultat baax kii daa daw koyam tuxu. waaw si beneen aliya nee na fekk bu koy génnee da ngay daan. wóolul sa waa koñ booy loolu doo ngaa ko wóolul waa koñ ci ñëpp la targeer ndax combat bés bi rëy si moom saa yi loolaa ngay bëreel ay yéen doomu njaago bi sans Christophe la ñaameli ko sama tur dëgg laa lay jox. waaw kii fa laa ne ba tey ma doon àndal ñooñu laay àndal ba tey yaa ngi mm. ci làmb laay wax ak moom yaa ngi dégg. ci làmb nee na da nga segg rek fa nga demoon liggéeyoo. garaaw loolu amul problème man man damaa sax maanaam soo damaa sax sama loolu si bi laa indaale mais dama laa bëgg a xamal benn affaire. muy nga dégg ko bu baax. gis nga nit bu la jëlee baal ñu ko rek Modou. non nice. mbër bu la jëlee. xelam dalul. mu di bu mu toll di ratatati muy mel ni ab kéegaay yi nii. xaw ma la ko kii yaa la léegi mën na ko kii yaa la ko kii yaa la ko. non non Modou. Modou bàyyi ma wax. xool bàyyi ma. gis nga kii bi booy bi kii sequma moom ay wax ju bari. am na lu tax sequma moom wax ju bari. moo doon fële kii li muy wax dara moom dara moom si laam si laam laay wax ak moom. mais si leneen lu or laam ko Modou. yaa ngi wax loolu Serigne Saliou Mbacke. wallaahi ah? wallaahi taala kii kii boo wetu moom mooy yëkk a soog. kii bu taxawee dëggal boppam xeex ak man. lu dee ma rey nga naan moom mooy yëkk a soog yow jéem a rey dama ne la yow boo taxawee dëggal sa bopp xëy na boo toog rek xataa da ngay jaay ba ñu wax. kii dama bari wax booy bi kii ma dem kii dama dem entraînement yi fu mu toll boo ko déggee micro mu naan mu nga mu nga dina bi saa yow loolu la jënd fu ma ne. dama jël sama combat dama jël sama avance jël avance nit. boo toog naan dama maanaam man damaa toj ne du ma may ne. wax laa la wax nag. da ngaa toj nen. du ma maye nen. di nga yàlla toj nen rek. wax naa la wax yàlla la su ko waxee. doom bi amul heure gën a mën ngaa doon. kii dafa am kii lii may def nii lii may def nii. déglu si ma lii may def dafa am kii de. dafa am kii de. kii tey jii nii. kii après timis ma la wax. waxuma la jox ma mais dina dama waan. ñu ngi waroon toog bàyyi toog bàyyi baax ñu waxtaan ñoom. waaw wax naa la wax. voilà wax naa la wax. moo tax Seydina Mouhamed kii ñemewul. waaye man kii bi ñëw ma. waaw naa dama xam. gis nga kii taxaw dëggal boppam. barki alxuraan combat bi tax a kii topp la ma romb Touba yegg si dëggal saa. <laughs> barki alxuraan man ah, tërërër kii. kii gën lay daw. mais loo koy doon yow. ah yow loolu barki alxuraan guddeeg bëccëg maa ngi nuyu ñëpp laa la wax guddeeg bëccëg dem si ay sëriñ di ma jaxasee ñoom ñi nga doon tey noonu booy affaire bi ko maa ngi gërëm sama yaay maam say maam say sama yaay maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm man may toog sama gaale te te mu jugee gaale ñëw sama gaale te boo si daa yow ma sa gaale laa yóbbuwul la fa daaru mën naa nga ne démb yëg jëkkartaa yi bu ma gisoon du ñëw ñaatir eh, bu ma woo alxuraan nii la ma rombee su ma woo ñëpp tooy ci tooy bi meññ. sëtëkaay yu bëri yoo xam ne yu bëri yi. waaw naa yi doon na polo yow. waaw ay polo yi taw. boo xoolee bu baax ay gàllaay. nga la wal. li mu doon wax. naan naan képp ku la ngeen xamul dara. mais taxaw di dëggal boppam yàlla rek a mën. man maa la ma yàlla dëggal waaw. xam nga say daara nga. fi nga taxaw naa jëw nit yi. di xas géwél yi. xas géwél alxuraan ay géwél yi ko tëggal di ko saa yow. eh yow naa yow. yow waaw ba may génn rek nga war a yow tey ñu naan di maasaale nga naan nga naan. parce que allah ji fan. yow yaa yow daa yow naa la wax. géwél yi. waaye di bëgg ma kumba sama géwél ak Aliou Mbaye. yow c'est vrai que ma yoo xam ne yow sama dama bari. waaw mu ànd ciblé le six. taxawal nga dëggal sa bopp. dëggal sa bopp xam nga loolu la. nga jël bi ma jël sa bopp léegi. entraîné ma. nga ma engrais na ni. bàyyi fa kafalu bi booy. waaw loolu góor bu dëgër nga bàyyi kër yu fekk yi. amul laal amul laal. mais wala sa bopp yow bàyyi kër yu fekk yi. bàyyi suuf ba ngay bari booy. waaw bu dee laal bébé non amul laal bébé. bu ma la jàppee. ayca am na solo bàyyi fa bi. wala wala loolu ay kër yu fekk yi si ñun. ñu jàppal ñu si jeex. wuyu leen bàyyi